ma min shay'in amul menn mbir abghada mu gën a bañ ilallahi jëm ci yàlla min aalimin ci aji xam yazooru kook al umara a buuri adduna yi al awsaax yu nee na li yàlla gën a bañ ci lépp lépp mooy boroom xam-xam buy dem di seeti buurub àdduna amul daal dara lu yàlla gën a bañ loolu qaala muhammad ibnu maslamata ak dubaa bu weñ xalal xadirati ci kaw ay xayta ahsanu moo gën a rafet min qaari in ci aj jàng maanaam ci boroom xam-xam rek ala abwaabi haulaai ci bunti yi lay buuri àdduna Muhammadul Maslama nee na woon weñ mu tong ci kaw aw xayta moo gën a jekk moo gën a jaadu boroom xam-xam buy dem ci buuru àdduna di taxaw ci buntu buuru àdduna qaala sufyaan attawriyu fii jahannama nekk na ci jahannam waadin aw xur laa yaskunuhoo wow du ko dëkkee illal qurraa u ndare jàngkat ya azzairoona ña di way siyaare lil mulooki ñeel buur ya sufyaan attawri nee na am na ci xur woo xam ne yàlla da koo jagleel boroom xam-xam yi dem ci buuri àdduna yi wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi qurban ak jege mina sultaani ci buuru àdduna illas daada ndare mu dolliku boo ak sori minallahi ci yàlla wala kasurat te bariwut at baaxuhoo way toppam illa kasurat ndare mu bari shayaatiinuhoo ay saytaaneem wala kasura du bari maaluhu alalam illa katura ndare mu bari xiqaabuhu mbugalam mu ne addis ba nee na nit day lum mu gën a jege buur àdduna rekk gën a sori yàlla boroomam te mu ne nit it àndoo yu baree bari gënu ca ndax day tax rekk seytaane gën koo mën a yàqal jaare ko ca àndandoo yu bari yooyee mu ne it alal ju bari foo ko fekk xisaab ju metti rek lay jur bu ëllëgee te xisaab ju metti ja mën na andi mbugal mu metti wa qaala ibnu mas'udin radiyallahu anhu inna rajula naka waaja yadduxulu dana tàbbi xala sultaani ci buur àdduna wa maxawoo te ànd naag moom diinuhoo diineem wa yaxruju muy génn wa maa maxawoo te di ànd ak moom cheyum dara xila waxes la ñal ko kayfa zalika naka la lolu xala mu ne ardaahu gërëm lo na ko bima ci lo xamne asqata mer lo na allah yalla mu ne ko ibnu masud neena won nit man na dem ci buru aduna bu muy dugg ni nga am diina ju mat sekk di waju bax waye bu fa bay dem day melne amutoon dara ci diine lam amoon ci diine lépp ñak na ko ci ba mu duggee ca aduna àdduna boobee ñu ne ko waaw loolu nu mëna démé mu li ci ëpp bo démé ci buru aduna, faaw rek nga bëgg lu ko neex ba top ko ci lo xamné yalla dala cey méré ben na nga waxé ak mom mba na nga jëfé ak mom mba la nga doon xalaat mba na nga doon fonke du dal lo séré serele xorom lo xamné na yalla su borom falaw lam numsik donte teyewun woon aynaanal qalami goguk khalima gi maanaam laabi khalima gi la atayna kon nu dikke fi hadhal mawdhi ci bile birep bi ahaditha ci ay adis kathiratin di aji bari walakin nak waye yow mubtadi'un aji doora jog nga la tahmilu do mana yanu ak thaqila aji dis في هذا الوقت جيل وقته ولكن واي أحد أحد التقل ما نام دغر لل يديك سيار الله بهذه الورقات جيلي كيت وجهل هاتن دفلين نصب هاي نيكا نولي سمبت كنم سنياري بت ووفقنا تي يلن دولي توفيق لي الله يلا وإياك أغيو للتحقيق جمج أك دغل منكونك damay téye foofu xalima gi ci wax yu mel nii may wax jëm ci diggante nit ak buur àdduna lam ko mën a yàqal foofu laay yemale wax ju mel noonu ndax su ma téye wutoon xalima gi mën naa ci indi ay addis yu baree bari ak wax yu baree bari waaye yow dangay ngay door a aw ci yoon wi doo àttan lu diis fexeel rek ba li ma lay dénk ci kayit yi nga jàpp ko bu baax a baax foo toll mel ne ni yaa ngi jàkkaarloog moom ne ko jàkk di ko jéem a jëfe maa ngi ñaan yàlla booleenu tawfiqale xam lu wér te sax ci lu wér ba ba nuy taseeg moom wa amal yadaani ndaal yaari loxo ya falaata marsa bul laale biximaa ci ñoom ñaar maa xam ne laa yaxillu du dagan laka ñeel la massuhu ak laalam minal ashiyaa ci mboolem yëf yi kal ajnabiyati ni ki jaambur bu jigéen أو مال المسلم ولا على الجلد بغير إذنه جلد نغلم ولا تكتب البند بهما تنيوم نار مالو خمنا لا يجوس ردغن أن نطخ تدغ به تنوم فجعل تيار الله ينكو سيار الله فخيل ببلتلال در لو خمنا يون ميلة غلالكو لكي جيجن جو خمنا jaabur la ci yow mën ngeen sëy ci yoon araamu la sañ ngaa xool kanam nga ak téng ya bu fekkee ne amoo ca xool ga jubloo bànneexu regaloo ci dem fitna waaye nag laal ga moom saña ko laal ci genn wet doo saña joxanteeg moom loxo mbaa dara lu koy nuru ba tey alali jullit dee ko sori alali jaamur moom fekki amo ci digal sori ko bu laal mukk alali julit baal alali joham xamne rek dikewule ci anam gu dagan mu ne ko it na la wóor ne lepp lu ñu ne sañeesu ko wax ci làmmañ rek batay señu sañeesu bind ci loxo da nga to bind ci sa loxo lo xamne ne sañeesu wax ci aw wa amal aynani ndaal ñaari bët wa uddahuma na nga leen damm xamma walis lépp loo xam ne laa yaxillu du dagan la ka ñeel la an nadaru xool ilayhi jëm ci moom minal maxaarimi ci mboolem xeetu yu araam yi minal maxaarimi waxiya ñoom kathiratun aji bari lañu min xaa bokk na ca an nadaru xool lil mar ati jëm ci jigéen aw li sabiyin wala jëm ci gone bi shahwati nafsin ànd ak bànneexu bakkan wa min ha bokk na ca it an nadaru xool fi kitaabi rajuli ci téere bu waaja mel ne bataaxelam bi xëyri isnihi ci lulul ndigalam fakk annama yanzuru daanaka daa mel ni day xool fi jamrati jahannama ci xali jahannam dafa jàll si ñaari bët ñi ne ko say bët dee ko téye bu baax di ci moytoo xool dara loo ci wërta xool te nag yi ñu araamal ku ko xool ci bët dañoo bari lool te mu ne ko bokk na ca ngay xool jigéen lu weesu kanam nga ak téng ya ndegam jaambur la ci yow suñu laa xool lu weesu loola ci moom te loola sax doo ko sañ xool xoolu bànneexu gone rek sax gu am taar doo ko xool xoolu bànneexu ki xool xale bu góor boo xam ne saxul sikkim bu dee ci ñay xemmem jëfi ngóor jigéen loola mën na leen caa wëlbati ba ñu def lu yàlla aaye mu ne ko it bokk na ci xool yi araam jekki-jekki di jàng bataaxelub jaambur wala rekk lépp loo xam ne sekkareb jaambur la bëggul ku ko jàng nga di ko xool di ko jàng ndax mel ni bëtam yooyee ci xali sawara jahannam lay dal nekkul di dal ci am mbind day wax rek lool ni mën a yóbbee nit dem ca safaan ba muy sawara wa bokk na ca at tatalluxu yuqamtiku di jéem a yër xalaamaa ci loo xam ne sutira suturaaleef na ko anka walis yow min xaajatin ci aajo wa xëyriha ak lu dul moom wa min xaa bokk na ci it ijaalatu nadari wëndeel xool ba fii maa ci loo xam ne udina digaleef na lakk ñel la fii duxoolihi ci tàbbeem min baytin moo xam day ab néeg wan xaw yi ak lu mel ne moom min xëyri isnin ci lu dul ndigal wa min xaa bokk na ci it at tatalluxu yuqamtiku maanaam jéem a yër xalaa xawratin ci awra illa an naa ndare bu dañoo nekk zawjayni fi ñaari dencante di jëkkër ak jabar waqad xiile waxeef na ne sax laa yam bax yi du yell li annahu ngir naka moom yurisu day sabab alxamaa ngumba wa yadhabu te muy demee bil xayaay ca kersa ga maanaam day yóbbu kersa ga وربما يرى أمانا مجيس لو خمني يكره دون كسب فيؤدي تمي أغلي إلى البغضاء جمج أك ومنها بقنجة نظر الرجل خالف واجه إلى حورة نفسه جمج أوري بطن لغير ضرورة يلد دولار وفي تحريمه نكنج أك أراملم وكراهته أو كسبم قولان ياري وخ waqila waxees na ne inna faaxilahoo naka aji defam ja yóbbu talaa def na ko nattoo bi sinaa ci njaaloo wanax wi ak lu mel ni moom waqaddu jurri ba te nattoof na ko maanaam seet loof na ko ba xam wér naam am déet fa saxa te mu wér bët dafa bari yuñ ci aaya mu ne ko bokk na ci li nga xam ne sañoo ko lu waay di làq di ko suturaal yow nga yoxamtiku bëgg koo gis lépp lu nit di làq rek di ko suuturaal rek da nga ko war a moytoo jéem a xool araam na nga di ko jéem a gis boo bëggoon dugg ci néeg sax ñu ne la bismillah jàll si du tax nga sañ fu ne nga xool fa sànni fu say bët ndax xëy na say bët tegu ci loo xam ne kooku bëggutoon ku ko gis ba awra des ko war sàng te it bu amoon koo xam ne sàngul awraam danga nga war a xam ne jàdd na yoon wa nga moytoo xool awraam joojee xam ne xool ga lu araam la soo ko mënee digal ci njëkk teraanga mu sàng awra ja baax na soo ko mënul nag nga moytoo xool awra joojee te daal jóge foofa mu ne nag lu may ñaar ñuy sëy ñaar ñuy sëy moom kenn ku ne mën naa xool lépp ka ca des teewul nag ne am nañu nekkat kat bu yoon daganalee loolu itam kenn ka di xool awray moroom ma gënut ndax mën naa joxe ngumba mën naa tax itam buñ amee doom doom ja doon ku ñàkk kersa te sax jëmmi kii xool awray waroom ma ci ñoom ñaar mu ñaar ñi xool ga muy xool loole sax moom itam mën na koo yóbbe ñàkk kersa mën na amit na kenn ka gis ca awray moroom ma lu ko naqari mu doxe ca bañ moroom ma ñu doxe fa bañante ñoom ñaar mu ne bokk na ci xool yi ñu aaye nit di xool awray boppam te amu ca jenn lor maanaam amul aajo ca xool ga maanaam nit jekki-jekki di xool awray boppam te amul aajo ca xool ga xool gaa ko neex rek bu amoon gaañu gaañu mu di ko faj mbaa mu aajo wat mu di ko wat loolu lépp moom aajo la waaye jekki-jekki di xool awray boppam rek ci lu dul dara man da koo neex rek dañ koy aaye am na ñu ne aayeeg sib la am na ñu ne aayeeg araamal la te mu ne nee nañ ku koy def faaw yàlla na too ko njaaloo dana njaaloo ji mbaa mu def lu mel ne njaaloo te bañ ko waxee itam dañ koo seetlu ba xam dëgg laa am déet gis ne lu ama am la kuy xool awray boppam te bëgg lu ko neex dong la faw rek boo ko seetloo dana mujj njaaloo mbaa mu def lu mel ne njaaloo te du ca mën dara wa minha bokk na ca an nadaru ila inel jababirati jëm ci worom doole yi ñeme yalla al jababiratu khu jabbar, bi ñu fidee ab kon manam ab tooñakat bi ay nit ta'zimi ci bëtu magal wa rida ak gërëm nga bi ahwalihim ci seen mbir wa itbaahuhum ak seenu tofal al basara gis ta'ziman ngir màggal bokk na ci ay ña am doole te ñeme yàlla di tooñ rekk jaamu yàlla yi ñooñu araam na xool leen xoolub màggal xool mel ni daal la def dalaa naqariwut rawante na nag nga leen di xool bañ a bàyyi ndax rek yéem leen ak naw leen mel ni daal dañu am xotti baax goo xam ne gu la la wa min ha bokk na ca an nadaru xool bi aynil ixtiqaari ci bëtub xeeb li ahadi ñel kenn min al xalqi ci mbindeef yi wa kayfa taxtaqiru naka ngay xeebe man koo xam ne laa taqtaaw doo mën a dogu bi ànd naka ci naka yow xayrun yaa gën minhu ci moom wa min ha bokk na ca it an nadaru xool ga fii maa ca la nga xam ne la yahillu du dagan kat buho bindam ga wala ta'allumuhu du ciagenu xamlom ga li qasdi zalika ngir jublu lolé wa hadha li nak kulluhu leppam fi ghayri nazrati nek na ci ludul xol ba al ula ba jek wa fi risalati nek na ci ar risala mu ne walaysa fi nazrati dir mi nek ci xol ba al ula ba aji jek bi ghayri ta'ammudin ci lul tay harajun bakar قال تعالى قل وخل للمؤمنين نيلو گم ني گورنيا يغضوا ني دم من ابصارهم مشيني جسم مشيني بت الايه مت لله با والحين بدال سبب الحين موي سبب الكنه وهو موم قوس ابليس موي خلق ابليس گا الذي كغا خمنه اذا ضرب بدوري به تي موم لم يخطئ دو موي وما حفظ سمت ahadun kenn basarahoo gisam ba illaa xafisa ndare bu wattoo allahu yàlla xalbahoo xolam ba fa jàll ci yi ñuy aaye ku ko xool mu ne bokk na ci xool yi araam nga jekki-jekki di xool kenn ci mbindeef yi xoolub xeebeel ndax mu ne koo xam ne mën laa dogu ne yaa ko gën noo koy xeebe ba di ko xool xoolub xeebeel boobu ba tey lépp loo xam ne sañee su ko bind ci loxo saña su ko jéem a xam loolee xamal ne doo ko saña jéem a xool xoolub jàng ak xoolub setantal mbaa mbaa genn anamu xool ndax xam nga man ngay xool ni mbind waxoo ci soxlaa muñu waaye xool ga nga koy xool rek ak jàng la ndax lu bare bari ngay jàng ay téere yoo xam ne soxlaa muñ jógut say bët rek mooy xool xel mi jàpp boole ji ak xool bi mu ne nag lépp loo xam ne sañu su koo bind sañu su koo jéem a xam loolee sañu caa teg say bët di xool rek mel ne ku ko bëgg a xam ci gàttal nag ne fuñ la aaye xool rek xamal ne bu say bët ne tegg ci lu aay nga daal teggi fa saasay saasa duñ la ca bindal bàkkaar waaye nag boo xasee xool gis ne lii araam naa xool te teewul nga jàll xool nag ñu daal lay koy bindal bàkkaar ne suñu borom nee na yonante bi waxal ñi gëm yàlla ñu damm seeni bët maanaam di moytoo xool lu ñu wërta xool ne ko it ci gàttal sax nee na bët day andi alkande nit bu teewul ay bëtam rek mën na caa jaare alku yàqule te it iblis mi nga xamee ni mooy noonu doomi aadama dafa def bët muy fettam gi nga xam ne ci lay rëbboo doomi aadama te su ko ca fettee rek li ci ëpp faaw rek mu jam maanaam bu diree ci fett googu rek jëmale ci doomi aadama li ci ëpp rekk faw fett ga jam misaal mel ne iblis bu bëggee góor ak jigéen jote jote bu aay da koy tàmbalee ci fexe bañ gisee buñ gisee nag ba bëggeel daal dugg waxante am joxante daje am loole nag fala yu bare bari ci yàlla aaya daldi mën a ame mu mel ne kon bët mooy jiwu sopp nit lu mu gisut man naa am du ko gaaw a sopp waaye lam waaye teg bët nag moom mën na koo daldi bëgg seytaane xiital ko ci wut ga te bu amee te fekk muy lu araam mu daldi nekk bàkkaar bu mu xamut daañu ko ko jégalam ndéet te seetlu ne xawsu iblisa googu baatub xaws lañ koy ëpp jigéenal ci làngu arab su boobaa nag xawsu iblisa allazi boobu allati lay doon isa daraba itam biha moo ci topp bii kon du ca topp la mu daaneele dog boobu nag moo dëgg lool te mata jàpp lool dane képp koo xam ne sàmm nga say bët ba xooloo ca lu wërta xool rek faaw yàlla sàmmal la sab xol ba lu ca wërta dugg du ca dugg loolu nag kon muy wax ju gàtt gàtt ju am am solo baat yi mooy wa ma xafida ahadun basarahu illa xafida allahu qalbah wa amal udnaani ndaal ñaari noppi ña fa yajibu dana war xifduhuma seen wattu xamaa walis lépp loo xam ne yutamu def na bàkkaaroo bi samaahihi ci ak déggam ka xiibatin ni ki jëw wa haqiqatul ghibati deug deug jew nak dikru ko moy sak tuddu haaka sa mbokk bima ci lo xamne fihi nek na ca mom tayit yakrahu dana ko fit ba dana ko naqari an law samihahu ci donte deggon nako wa fil hadith nek na ci hadith an al ghibata naka jew ashaddu mu gëna tar min talatina ci fanwer zaniyatan ci ay njaalo fi islam ci l'islam wa fil qur'ani nek na ci alquran damuha ak ngagnam wa tashbihuha ak nirolem bi akli lahmil maytati ci lek yap med wala ci lek yap doomi adama bu fatu wa fi nasihati albat li jimaa kunta li cheikhina ñeel sunu sëriñ al muxtaar radiallahu anhu wa ardaahu te mu gërëm loo ko xanaa walis nu wa ja'alana te yal nañu def ne man ne koo xam ne tawallaahu féetewoo na ko ne wa xaqiqatuha dëgg-dëggam dikru rajuli mooy tudd waaja axaahu mbokkam bi maa ci loo xam ne yakrahu dina ko sib xalfahoo fa gannaawam mim maa ci la nga xam ni xoo moom fii nekk na ca moom wa illaa ndéem nekkul ca moom fa kon moom buxtaanun aw dóor la wa kazalika naka noonee law zakarta doonte tuddoon nga daabatahu daabaam aw sawbahu wala malaanam aw daarahu wala këram aw shay'an wala dara mimmaa ca la nga xam ne yataallaqu dana aju bihi ci moom mimmaa ca la nga xam ne yakrahu dana ko sipp dafa jàll si ci ñaari nopp mu ne ko nopp yi day da nga leen di sàmm bu baax a baax te xam ne lépp loo xam ne dañuy aaye ku ko wax ci aw làmmiñ ba tey dañuy aaye ku ko déglu ci ay nopp kon nag jëw ni nga xamee ni moom la araame ni la koy aayee ci làmmiñ noonu la koy aaye itam ci ngay di ko déglu kenn di jëw nga di ko déglu mu dellu fàttalewaat jëw ne jëw day mooy wax ci nit loo xam ne lu am la bu wér sax waaye bu déggoon loole nga wax ca moom du ko neex te bu ne jëw dafa diis loolu ndax addis ba nee na benn jëw rekk moo gën a ñaaw gën a diis fanweer yi njaaloo ci lislaam fanweer yi njaaloo benn jëwoo ko gën a diis ca na addis ba indee ba tey mu ne booy jàng alquran ba ko suñ boroom aayee da ko nuróoleeg lekk doomi aadama bu faatu ndax ba mu ne wala yaxdob baadukum baada te caa teg ay yuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayyita bu ñenn ci yéen di jëw ñi ca des te caa teg ne ndax kenn ci yéen bëgg na am mbokkam faatu mu tiim ko di ko lekk wane ne jëw noonu la mel am na it laabire boo xam ne Sidi Muxtaar moo ko defoon xëy na bu dee ci wax waxi naaru gànnaar mën nañu koy tuddee albat li jumaa kunta doon na ca leeral lan mooy dëgg-dëggi jëw mu ne dëgg-dëggi jëw day mooy wax ci sa mbokk loo xam ne bu ko déggoon du ko neex tey it ca dëgg-dëgg lu am am la mu teg ci ne su fekkoon ne nag la nga wax ca moom daa farul am kon lay gën a diis ndax da ko duural kon na ko koo jëw duural ko boole ca mu ne nag jiw daa yomb lool ndax dañoo jëlale jëmmam waaye lépp lu moom lu aju ci moom rek donte daabaam la ni ki otoom wala ay yéreem wala këram mbaa mecc mu muy liggéeyee mbaa tool ba muy bayee moom daal lu aju ci nit nga wax ci loo xam ne ca dëgg-dëgg am na waaye su ko déggoon du ko neex rek dal ngay jëw motax jow mom jaxé mucc lol lol wa minhu bokku na ca qawluhu wax yonante sallallahu ta'ala alayhi wa sallam li aisha yel soxna aisha ko qii i ben lojul wala khaxtandikul qii i waccul lojul tayabi lamma qalat bu waxene ya rasulallahi inna hadhihi al mar'ata naka jile jigen la tawilatu dhayli aji gudd bicc fastaqa'at tamu loju faqa'at tamu waccu tamu yabbi mudghata lahmin dogu yap faqala mune mom yonante bi wala ci nga xamne nafsi sama bakkan bi yadihi nek na ci loxom law mutti donte faatu won nga waxiyate moom dog wi fii batniki nekk na ci sa biir la kon nga dugg sawara wala uxuni te duma jariñ ba duma mën a fekk an ki walix yow minallahi ci yàlla chey an dara mu nekk bokk na ci li nga xamee ne jëw bon na lool soxna aïcha daa ma sa wax loo xam ndax ndax ji bicci balana mi da gudd rek la wax yonante bi ne ko jew nga ko xaxtandikul te jéem yàbbi ba xam naka mu looju xaxtandiku dal di yàbbi aw dogu yàpp bi aw lumb ba aw dog dal ko tudde yonante bi waat ci yàlla ne ko su fekkoon ne faatu woon nga te lii dañu ci yow nga lii faaw nga dem sawara te sa digganteeg sa borom duma ca man dara wa ka namimatin ak niki rambaaj wa hiya moom naqlul kalaami mooy toxal wax ja lil xëyri jëm ci keneen xalaa jihatil ifsaadi ci wàllu yàq waqad qaala waxoon na yonante bi alayhi salaam laa yadduxulu du dugg aljannata ajjana qattaatun ab rambaajkat yaa ani dana jublu nammaaman ab kat ay la yadkhuluha du ko dugg fi awali sabiqina ci doonu way jituña manam ci ñu njëkk dem ci àjjana ya mu ne ko rambaajit ni ñi aayee ko ko wax ci aw làmmiñ dañuy araamale ko ko déglu ci nopp rambaaj nak mo jële wax ci ki ci ñi yob ci kaneen ci ñeneen ndax bëgg yàq diggante ba siwal daal loo xam ne ga mën naa yàq loolu rambaaj la lu araam la ci wax ko ci làmmiñ ak déglu ko ci nopp ne ba yonante bi nee na woon ab rambaajkat du dugg àjjana fekk na ne daa bëgg wax ne du bokk ci ña cay njëkk dugg ndax rambaaj moom ndegam bàkkaar la rek te kooku wéetal na yàlla kon du sax ci sawara diwee waaye nag du bokk ci ñay njëkk a dem àjjana ndax rek rambaaj gam doon rambaaj wazorin ak seere neen wa fil xadiisi man shahida ku seere zoran ak neen xolliqa kon taqaleef ko min lisaanihi ci làmmiñam yowmal qiyaamati ca bis penc mu ne ko seere loo xam ne wóoru la daa araam ci wax ga ca lamiñ araam tam ci déglu ko te di ko ba hadis bané ku séré lo xamné woru ko su ëllëgee bis pencé dañu takal séré sosé ci lamiñam mu ci rus séré né nak moy séré lo xamné woru ko don sax lam séré bañ ko toppee fara dëppoog la am waye bu muy séré mom daa ñeme yalla rek waye woru ko won lolu séré nén la وكذب أكفن والكذب أكفن من أكبر الكبائر بقنشي جنجا ري بكاري ماجي وحقيقته دق دقم مطخوكا ميسك تدو بما أجلو خمني لا تشهده دوكو سيري عيناك سنياري بت ولم تسمحه تدقوكو